bonsoir à tous et bienvenue l'invité de 7TV waxtu wi jot na sunu gan yegg si na ñu am nag euh, plaisir euh, di recevoir tey ci euh, plateau bi Mamadou Diagne si Mbengue il est responsable politique nekkoon maire bu Tivaouane bokk alliance pour la république nekkit ci wàllum ndombal tànkam directeur général bu SNHLM Mamadou Diagne Sy Mbengue ñu si lay ñu ngi lay nuyu Mamadou di amaat mbégte ñëwaat répondre si seen invitation. jërëjëf la sant bu baax baax ci li nga wuy sunu invitation c'est pas une première comme ni nga ko waxee ñu nag tàmbali ak l'actualité bi nga xam ne xëy na moo mujj jamono ji muy cette condamnation euh, jëm ci kii di Ousmane Sonko a 6 mois avec sursis euh, confirmé li nga xam ne mooy amende bi mu waroon a fay. Euh, mooy li koppar yi war na fay Mame Mbaye Niang 200 yi ba tey dara wàccu ci mais ci condamnation bi euh, ban avis nga ci am ban impression parce que avant c'était deux mois te ñu def ko six yokk ko noo ko noo ko gisee. waaw jërëjëf Modou jàngat bi ma ci am rek mooy que ni dañu nekk ci benn république am ay lois ak règlement yoo xamante ni moom moo koy régir. Mm-hmm. citoyen ak koo mën koo mënti doon nga am àq ak yelleef devant la justice. je pense que si loolu moo indi ñu dem euh, am benn jugement en première instance yoon may ñaari parti yëpp plaignant bi comme ki nga xamante ne nii euh, moom la ñu moom la ñu moom la ñu porté ku si nekk soit nga am satisfaction ci jugement bi nga xam ne rendre nañ ko wala boo amul satisfaction yoon daf la may nga def li ñuy woowee li ñuy woowee appel. appel waay Sénégal bi yëpp nag déggoon nañ mi Mame Mbaye Niang ak le parquet. Mhm. parce que parquet bi aussi yoon may na leen loolu. mooy ki nga xamante ne ñu def appel. Mhm. Euh, tey jii sax euh, sénégalais yëpp jàppoon nañ ni parti boobu rek moo def appel mais tey jàng nañ dégg nañ ni le 18 bii passé plaignant bi tam def na appel. Mhm. pourtant il dénonçait la précipitation bi am ci euh, programmation appel bi justement. waaw xam nga mbir moom bu fekkente ni dal na sa kaw appréciation bi nga ciy am lenn rek daal laa yaakaar ni moom nga moo war doon sa argument. Mhm. mooy kon teguñu ko ci yoon. Mhm. mais bu fekkente ni yoon bi dañu mën nañ ko indiwaat ci 24 heures. les lois et règlements sont respectés. je mhm. pense que jafe-jafe amul. tey jii lecture bi ñu ciy def rek mooy ñaari parties tey jugement mënoon na am ñu dindi amande bi. wala condamnation bi gën a gën a gën a gën a faible. Mhm. bien que tey wax nañ ni la le droit a été dit parce que le ministère public dafa demande deux ans. de prison dont un an ferme. donc le ministère public est sorti de cette affaire là insatisfait. bu njëkk bi avant ministère public tey bu njëkk bi yéen yéen a ci kontaanul woon parce que da ngeen jàppoon ne euh, vraiment ak yëfi ni mu toll deux mois avec sursis rarement lañ koy gis am sax ñu demoon ba juge bi Pastef la bokk tey jii ni avec ce qui s' est euh, opinion yi changé na wala li ngeen nekkoon ngeen nekk. ba tey waaw man euh, man du ma du ma def genre jugement yooyu. Mhm. man dama jàpp ne rek sama justice su réew gëm naa ko. te bu fekkente nii jël nañ benn décision damay jàpp ni mooy décision bi nga xamante ni wax nañ ko ak leur intime intime conviction biñ ko euh, c'est vrai Mame Mbaye Niang ñoo bokk parti ñoo bokk ñoo bokk fu ñu fu ñu féete donc dans cette affaire là nga xamante ni jàpp nañ ni tooñ nañ ko ñun moom lañ doon soutenir waaye nag nekkul nii dañu yéene ki mu jàkkaar lool ñu tëj ko wala ñu mettital ko li ñu li ñu yéene dans cette affaire laa mooy mu Sénégalais yëpp bu ñu ci paree ñu xam ni Sénégal dëkk droit la. Mhm. du lu neex waaye def lu lu neex waay wax ak koo mënti doon. bu fekkente nii wax nga loo xamante nii euh, teguwul ci yoon war nañ la mën a teg mën nañ la teg ah, mais monsieur Mbengue question am naa mhm. satisfaction aw ma satisfaction ci liñ ko tëj bari na bariwul non man sama satisfaction rek mhm. mooy que ni justice Sénégal mi ngi dox et quelles que puissent être les pressions quelque que puissent être les menaces yu pesées ci magistrat yi bu wax dëgg jotee dinañ ko wax. tey jii loolu rek mooy sama satisfaction. mais avant moom le plaignant Mame Mbaye ngeen bokk parti euh, bi yëfi jeexee rek dafa defoon conférence de presse la première fois laay wax xam la ne moom li ko bëgg li mu bëgg mooy que Ousmane Sonko du deseeti benn dërëm même buy nangu sax këram gi nga xam ne moom la dëkk dana dana fa yegg ak moom maanaam loolu ça ça devenait une affaire personnelle. Hmm. koo xam ne justice nga bëggoon rek est euh, am satisfaction maanaam ki ci bopp Mame Mbaye xaw ma lu tax mu wax loolu wante tuuma dafa metti gis nga tey jii ñu toog ni la euh, ñun aussi dañu nekk di si gestion mhm. xëy na Mame Mbaye Niang daaw wala daaw jéeg bégaloon na yaayam wala bégaloon na tàntam wala magam yóbbu ko màkk lu ma lu demee noonu tey buñ toogee bés ñu ni ko kat ba ngay ba ngay gérer te moom yorewuloon sax Prodac ministre la woon mhm. temps yooyu da nga luubaloon lu toll ci vingt neuf milliards tak yaayam ne ah ndekete man màkk ba ma yóbbu ba law lewul mhm. loolu day metti ci donc je pense que comprendre naa ko lu tax mu bëgg a setal dara. parce loolu ci premier jugement bi. waaw loolu xam nga moom moom mi nga xam ni moom mooy ndeyu mbili gi moom mooy xam ndax am na satisfaction. ou pas parce que kenn ku personnel ah. nangu ko rek ñu avancé. déedéet non du ma ko nangu <laughs> appréciation la. appréciation la mooy que ni moom xaw ma lan moo tax mu mu wax loolu. man comme ni ma la wax dugguma ci ay jugement de mhm. de valeur wala may sori jéem dugg ci bopp mambay wala du dugg si bopp keneen moi je constate dans une république mhm. institution yi ni ñuy doxee est ce que mi ngi jaar yoon est ce que jaarul yoon est teg nañ ko wane ni euh, euh, citoyens yëpp ñoo yem devant la loi loolu mooy li nga xamante ni moom a gënoon a soxal te loolu moo am na tam leneen lu muy wane euh, niveau d' bi am entre les acteurs politiques au Sénégal mhm. mais nag du les niveaux la loolu amee tey jii euh, am am na ñoo xam dañ naan wax ni moytul leen ma député yi ndax ni ngeen leen gisee ñuy wax ci télé bi bu di xuloo di xeex bu añ jotee ñoom ñooy añandoo di waxtaan di lëngante ba keroog ñu duggaat. ci biir ci biir on disait même des responsables politiques Ablaye Wade Abdou ko wax. mais loolu mais léegi dafa mel ni ça disparu. loolu nag je pense ñun ñëpp dañu war a ànd regretter ko nañu gis ni dafa am benn benn nouveau type de politicien yoo xamante ni ñi ngi génn te fi ñu teg seeni i mbir nekkul ci euh, ku nekk joxe sax xalaat. ku ne wax am fi nga war a yam mais dañu dugg ba ci vie privée nit ñi di wax yoo xamante ni kenn xalaatul woon ñu jël ko di ko teg si déroulé. mais nee nañ ñooñu ils ont été créés. par mm -hmm. qui par vous lañ wax. Mhm. ce régime yéen a créé politique yooyu noonu. non suñu leen créé woon si ñun la ñuy bokk. non je ce que je veux dire par là mooy. Mhm. Euh, seen comportement ak envers ñoom. Mhm. moo tax bañ dem ba mel noonu en fait. mais ban attitude la suñu. maanaam di xoqatal euh, opposition bu bëgg manifester ñu leen du manifester. Mhm. Euh, bu ñu déposé liste ñu dàq liste bi. Mhm. raje kii mhm. condamné kële après ils se braquent ils deviennent vraiment euh, ay bêtes yoo xam ne ils sont dos au mur. moi je vous ramène toujours aux institutions. parti bi APR moom mooy wax ni kii war na bokk ki warul bokk ñun ñoo nangu bokk ci république teg ay institutions xam dañuy fonctionner ñooñu lu ñu décidé. ñun ñëpp dañ ciy war a ànd muy benn. bi ci des li ñuy wax persécution amul mais il ne faudrait que jamono yu ñu toll ñu yaakaar ni su politique bi tollee fii rek dafa nekk une période de non droit nit ñi war ci profité wax lu leen neex def lu leen neex quelle que puisse la circonstance l' état dafa war a toujours être présent maanaam mm-hmm. état moom mooy garant la stabilité de ce pays là moom mooy garant jàmm di am si dëkk bi quel benn bu dee ndañ ni suba la élection ku def naka su dul noonu war nañu am institution yoo xam ni bokkuñu ci politique c'est la justice ñu teg ki ñu war a teg ci yoon. mais justement fa la problème bi nekk nga baal ma ñu war a jàpp ne justice loxo exécutif daf ci nekk daf ci feeñ bu baax a baax moo tax jamono ji euh, gars yu bëri dañ koy dañ koy diingaat. waaw xam nga loolu bu fekkente ni ni euh, nekk nga ci diggante toujours di nga jéem a développer ay arguments pour atteindre l'opinion mais tey dama ni bu fekkoonte ni nii rek état justice état euh, le pouvoir exécutif am na pouvoir pour manipuler ko ni mu ko bëggee. xëy na tey lu baree baree bari mais euh, du du verdict gi génn du doon yooyu parce que ñaata yoon la ñu condamné état ñaata yoon la ñuy condamné état te ay juridiction ñoom ñoo leen di ñoo leen di condamné mhm. agent judiciaire de l'état chaque jour mi ngi dem tribunal chaque jour ñi ngi ñi ngi condamné état loolu ñi nga xamante ni bëgg nañu yàqu xelu xelu nit ñi ñoom ñooy waxee noonu pour lan pour mën a am liberté wax lu leen neex def lu leen neex or dans une république semble être un cas particulier que à chaque sorti dafay répéter li nga xam ne moom valoir emprisonnement ses camarades mais moom il reste libre mm-hmm. Ousmane Sonko chaque jour mu am wax ñu mu wax joo xam ne ñu bëri jàpp nañ ëpp na teewul ba tey mi ngi fi avant loolu euh, viol c'était pas Euh, c'était très rare ñuy gis ku ñu inculpé pour viol bàyyi la nga doxi say soxla avec Ousmane Sonko on a l'impression que état bi nga naan moo ñu war a protéger dafa dafa wane benn faiblesse. waaw man xam nga euh, sur le débat juridique mooy li ma la wax sànq rek. Mm-hmm. c'est-à-dire que man du wax ni euh, juge bi def na lu mu warul def def na wala deful lu mu waroon a def loolu yëpp ay jugement la nit ñi ñoom ñooy ñooy euh, ñooy ñooy ñooy apprécier am na ñeneen ñoo xamante ni bokk nañ si ñun effectivement même au sein donc de la de la de la mouvance présidentielle nee nañ pourquoi diw bi ñu ko jiiñee viol rek ñu jàpp ko juge bi moom moo ni moom moo xool argument yu mu am pour ni kii dañ ko war a téye kii waruñu ko waruñu ko téye mbooloo mu ko génnal ci mbedd mi na waaw parce que aussi euh, ñu ñu jiiñ la dara nga woo nit ñi ni kaay leen génn leen et ça devient de plus en plus sérieux mm-hmm. ça devient de plus en plus violent hier j'ai eu peur quand j'ai écouté c'est rarement laay déglu ay ay ay ay ay live yi mais démb j'ai j'ai eu peur quand même ah oui ci peur bi ma déggee ñu ni ndaw ñi euh, li ñu leen doon doyee mat ngeen ko léegi mën ngeen a xeex mën ngeen a attaqué j'ai peur bi ñu bi ma déggee à Tivaouane fa ma dëkk ci département Tivaouane mu wax ni euh, xëy na su dee su ngeen dee quelques personnes mën nañ leen a massacrer waaye bu ngeen baree lool kenn mënul ci yéen dara mais j'ai eu surtout peur démb bi ma déggee ñuy wax ne magistrat yi kat jamono yi nga xamante ni nii daan ngeen jël ay jugement yu leen neex pas juge moom noonu la ko apprécier. Mm-hmm. ba pare di ci di ci sortir indemne loolu jeex na tey. ça c'est des menaces c'est des menaces très claires. mais mooy pour agression agression physique. alors malheureusement loolu du man maay décider ndax loolu mu wax. jar nañu jàpp ko wala jarul ñu jàpp ko loolu c'est je pense que euh, le ministère public moom mooy ki nga xamante nii moom moo ci am yaa wax léegi Tivaouane Tivaouane googu ñu dëkk am na ay ndaw yoo xam ne ñu ngi ci kaso bi euh, bu weesoo Pastef gi ñu bokk say ndaw yi dëkk lañ mhm. la moo ci war a nekk seen taxawaay muy ndaw yi Tivaouane ndaw yi Sénégal bu mu mënti doon amu ci kenn koo xamante ni nii tey jii yéene naa la prison ak koo mënti doon wante tamit amul kenn koo xamante nii war na am droit def li nga xamante nii yoon Euh, daf koy daf koy aaye. Mhm. man mii di wax ak yow su ma defoon lu xamante ne nii yoon daf koy aaye je pense que bu fekkente ni nii daan tegu na sama kaw boobaa damay xam ni je suis le seul responsable yéenoo ma ko ndaw Tivaouane effectivement foofu la ñun ñooñu parce que ñooñu. ñu ma xamante ne daaw la may dara bi ngay nekk maire muy Alioune Badara bu bu Pastef euh, waaw. wante euh, euh, gëm gën gëm naa ni maire bi loonu attaqué attaqué wul Diagne Simbeng ba ma ba ma noppee mhm. nekk maire la ma gëj a attaqué kon euh, xëy na institution bi moom la doon attaqué mhm. stratégie am la parce que aussi bul fàtte boobu moom dafa nekkoon ni si société civile mhm. mais en réalité dafa non non ne dafa laqatu woon ci gannaaw société civile pour pour di attaqué mais ba mu jotee ah, li waroon a feeñ feeñ na dem na bokk na ci parti d'opposition et puis mi ngi am la ligne de conduite de ce parti d'opposition là donc je pense pense que ni loi bi ak règlement bi euh, ñëpp la fi nekkal. Mhm. yéene ko ko nag comme je dis yéene wu ma kenn mu dugg mhm. prison son père c' est mon ami. Ah la daf may woo di ma conseiller même quand j' étais maire quand Anta Diop doon ma attaqué. Mhm. dama doon dem di seeti papaam capitaine boobu mu nekk nit ku baax. ce qui montre parce que li ñu boole mooy histoire. te histoire bi kenn mënu ko kenn mënu ko effacer mais nag Sénégal toll nañ tolluwaay boo jot na ñun ñëpp ñu bañ a dem dans l'euphorie ñu bañ a dem jiital rek suñu ay bëgg-bëgg ñu toog dex def def euh, taxaw seetlu xool Sénégal bii nga xamante nii tey am nañu opportunité décoller à partir de 2023 ndax li ñu yàlla wërsëgale wërsëgale ñu ko woon muy muy muy euh, muy ak gaz ban comportement la ñu war am et ça je ne le dis pas parce que tey dama toog fii Mamadou Lamine Diallo di tekki dañu daje y a mois yàgg na boobu li yëpp xewagul mm-hmm. en Pologne man ko man day honorable su ma sañoon 2024 c'est déjà raté parce que li xew nii gëm gisuma nan lañ mën a dajaloo ba benn nit rek dem ni mooy candidat en devenir entre l'opposition ak ak ak ak ak le pouvoir mais bu ñu ko weesoo su ma sañoon sénégalais yëpp def benn gentleman agreement autour du Sénégal mhm. pour taxaw ni opportunité bii ñu am pendant dix ans dootu ñu def politique politicienne mais ñun ñëpp nañ consacré wu pour lii ñu exploiter ko explorer ko lépp de Sénégal ngir Sénégal développé bien sûr lui en tant que politique il m'a il m'a dit mbaadu gentleman c'est autour de Macky Sall man ko su ma sañoon mu doon moom mhm. parce que man moom laa faral te moom laa jàpp ni moo fi war a nekk bu mhm. boobaa tamit mu doon lu am solo dinañ ci ñëw tuuti parce que jamono ji dafa mel ne gars balaateer la ñuy mais avant loolu euh, yaa ngi naan déglu nga Ousmane Sonko démb waxam am na tam leneen loo xam ne mën nañu ko ci retenir mooy que ne moom il en a fini avec la justice sénégalaise tant que mëntuñoo assurer les conditions de sa de sa protection maanaam muy procès bu tey bi il était pas obligé d'y aller d'accord mais le 16 bu wuy jiwul est-ce que leneen du xew euh, bu foog nii bu taxaw ni man pare naa ci si Sénégal mooy da nga pare ni nekkatuma sénégalais. Hmm. mais tant que yaa ngi am sa carte d'identité nii ñu siy dem nga xam ni sénégalais nga. mënoo pare ci justice si Sénégal. loi yooyu règlement yooyu ñoo lay régir mhm. nga nekk un citoyen boo xamante ni yow ak yeneen citoyen yëpp bu fekkente ni yoon soxla na la fa mu na mu war a taxawee ci sa wet rek lay lay taxaw bien nag yoon may na ko comme li mu def tey bu euh, audience amee nga bañ a dem. tey mënoon na bañ a dem il est obligatoirement tenu moo tax la mhm. justice sera là ñoom lu ñu war a def dinañ ko dinañ ko def. bu bu mhm. boobaa mais jàpp ma ni un sénégalais bu fekkente ni gëm nga république. surtout nag ngay aspirer aux hautes fonctions. Mhm. le président de la république aspirer ah. war nga mën a taxaw nga ne justice bi. man gëmatuma leen dootuma leen wuyu dootuma leen dootuma leen déglu lu métti métti il faut nga rester sénégalais il faut que tu restes un citoyen ñu wax ci leneen muy l'appel au dialogue du chef de l'État yaa ngi koy wax ci tënku réew yi ak la malédiction euh, du pétrole tey jii ni président Sall sàkku dialogue ci opposition bi am na ñoo xam ne ils sont favorables dinañ wuyu ji wax nañ ko déjà am ñoo xam ne de notre côté duñ ci dem l'appel au dialogue déjà en tant que bi cet appel là je pense que ça doit être euh, un appel permanent maanaam fu ñu toll mhm. ci Sénégal ci tolluwaay euh, président de la République moom nga xamante ni c'est le président de tous les Sénégalais ñu ànd moom ak ñu àndul ak moom dafa nekk wax ma sax ni mu nekk ngëneel mais devoir la ci moom fu mu toll mhm. muy fexe ba dialogue di am dialogue ne veut pas dire que soo toogee ak man si benn table ñu waxtaan ñoo ànd mais si au Sénégal tey jii egg nañ fi ñu egg stabilité bii ñu am nii yàlla di ñu musal yàlla nañu yàlla gën a yàgg musal ndax Sénégal ku ko gis xam ni ceinture de feu moo ko moo ko wër mhm. lépp si dialogue la tegu si vous vous rappelez bien quand Abdou Diouf disait code électoral consensuel bi duma ci changé du ma ci changé virgule si dialogue la jóge woon beneen bi mooy je pense que suñu waxtaanul réeroo day am mais nag politique dafa am ñoo xamante nii li ma sëriñ Maodo si sa wax mu ne ma nañ ko coowandoo dëgg bi réer moom moo leen gënal parce que suñu ko waxtaanee teg ko ci yoon rek seen ay faay dina dina feeñ mais nit ki la kaay waxtaan néew la yow sax li ñu war a waxtaane boo bëggee nga ne lii tam dama bëgguñu waxtaane ko nga ni bëgguma ñu waxtaan mooy kooku bëgguloo bëgguloo jàmm te Sénégal gi nag jàmm moo ñu jikk mais le problème mooy ñu bëri ils soupçonnent une intention inavouée du chef de l'État du président Macky Sall d'en profiter pour euh, glisser un peu ci conditions yi euh, sa candidature pour 2024 am ñu bëri ñoo xam ne nañ ne nañ wax waxtaan weesu na tey jii nii dem juste c'est cautionner cette candidature du, du président Macky Sall est-ce que suñ demoon si dialogue bi kii sait président leen comme yéen ñëpp ñëw ngeen ñu waxtaan lii ak lii suñ ci d'accordee nangam ak nangam mooy xew kenn xamagul donc jàpp ma ni ñoom war nañu mën a dugg ci xelam ba xam li nga xamante ni moom moo tax mu woote dialogue mais ñun ñi ko xam di euh, dund ak moom. Mhm. xam nañ ni lii muy woote si dialogue lu mu gëm la. te aussi bu fekkee dem nañ ci dialogue bi sa pas pour doo woo ay nit nag ñu waxtaan nga ne sama avis rek moom lay. moom lay moom laay jox bu doon boobu du jar muy woote dialogue. Mhm. daf leen woo pour suñu amee terme de référence yi ñu wax li ñu ci war a waxtaanee. ku su nekk soo jëree ci avis li ci gën mu yaakaar ni moo gën ci Sénégal pas forcément moom li mu bëggoon. mu jàpp ko pour ñu. pour ñu dem ci mais justement loolu la ñu koy reproché ñoom ce mooy euh, les fois où ils ont discuter avec le chef de l'État wala par la majorité euh, li ko arrangé rek lay lay lay jàllale en fait mais il n'en a que faire des préoccupations de de l'opposition. non man d'accord ci loolu. non non non tel n'est pas le cas il faut ñu joxe ay exemple concret mhm. nii euh, bi ñu demee tel dialogue lii ak lii moo xewoon te nii la doxale nee nañu parrainage bi ñu dindi ci local par exemple nee nañu aussi le maire élu au suffrage direct yooyu yëpp nee nañ bëgg bëggam la woon parce que moom la moom la arrangé woon non est-ce que moom la arrangé woon léegi le maire élu au suffrage direct je pense que dans un bu fekkente ni dans une démocratie bu mel ni Sénégal. Mhm. la réalité mooy un maire boo xamante ni dañ koy élire au suffrage universel direct kooku arrangé wul le parti au pouvoir au contraire parce que les jeux d'alliance yi nga xamante ni mën nga ko lier après les suffrages directs donc euh, euh, si si parti au pouvoir lay gën a yomb. Mhm. mais mais dafa bëggoon au au contraire. par une vitalité démocratique. Mhm. sénégalais yi mën a tànn directement seen euh, seen maire loolu par exemple ça c'est sujet à à discussion. moi je pense que tey jii ce que je salue je salue euh, xam nga culture d'état yombul il faut avoir la culture d'état pour mën di def yenn yenn dépassement yi. si tu vois aujourd'hui euh, ku mel ni Barthélémy Diaz tey def naa à 19h am na même benn jàkkaarloo bu mu waroon def pour weddi encore une fois ay accusations yoo xam n nii la même personne moo ko tegaat mm. moo ko tegaat ci kawam et gis même loolu même bu doon Barthélemy Diaz moo ko ko wax su amoon culture d'état du ñëw di ko étaler ci kanamu ci kanamu ci kanamu. Euh, dafa mel ne dëgg dëgg Barthélemy parce que man j'étais à cette rencontre fa laa jógee. Euh, il l'a dit comme ça noonu la ko waxee. ah je l'ai pas voilà noonu noonu noonu la ko waxee mais euh, loolu tamit day soulever beneen question. Mm. rapprochement bi am entre vous. Mm. ak Barthélemy ak Khalifa Sall aussi est-ce que lu dëggal Ousmane Sonko mi jàppoon ne da ngeen ne ci volonté isolé ko. mais attends bu fekkoonte ni loolu ñu koy wax li xew assemblée du xew. je pense que ni nii àndandoo la ñoom dañuy dañuy ànd waaye ay nit nag bala ngeen a xamante dëgg-dëgg ngeen ànd ba ci biir. Mm-hmm. je pense que ni nii mën nañu am benn objectif commun xam nga dañuy faral di wax ni Sénégalais yi mënuñu mënuñu fal folli folli la ñu mën. folli la ñu mën waaye. peut-être amoon nañ benn objectif commun pour demandoo ensemble législatif bi nga bës j'ai répondu à un journaliste bi ne ma noo gisee. la forte alliance euh, bi nga xamante nii dafa hypertrophié men entre euh, mooy la Yewwi Askan Wi. Mhm. man ko dama ci kontaan parce que je sais que ni mënu la dem ba élection présidentielle. et aujourd'hui l'histoire l'histoire l'histoire boobu jàpp naa ni la leen taxoon a jóg du élection présidentielle la leen taxoon a jóg mooy ñu affaiblir rek. le parti le parti au pouvoir suñu paree nag ku si nekk dem taxaw taxawaayam. mais je pense seen charte yi déjà. gis nga séddaloon na loolu loolu lañ bëggoon. li xew nii tey. Mhm. nga gis Barthélemy Diaz tey jii mi ngi fustigé. il je mhm. une émission à 19h30. Mhm. j'ai pas le temps j'ai pas le temps de revoir ça tout à l'heure mais soo gisee comportement Barthélemy Diaz nga gis surtout comportement Khalifa Sall da xam ne état ay fo état dafa am ñoo xam ne homme d' état. ñooñu c' est des hommes moom laay wax naan la. mais loolu xanaa tey la Barthélémy n' a pas. ah je dis je dis je dis la culture d' mhm. tu peux opposer. mais dina am foo mooy fi nga xamante ni foo mooy yam non je suis pas en train de dire que euh, Barth est tout beau il est tout gentil non mhm. mais je veux dire dans certaines conditions bu jotee da ngay fàtte lépp je pense que lu mel ni Covid bi président di woote noonu nit ñi demee euh, wuy ji wuy ji woon te taxul effectivement taxul ku nekk ba nga fa jógee si posture bi nga nekkoon nga nga continuer ci gis nga quand l' état bu fekkente ni état moo taxaw bu fekkee nation bi moom moo soxla yow da ngay fàtte sa bopp. Mhm. on oublie nos petites personnes teg état bi si suñu kanam. au contraire tey jii ñoom bu ñu demoon wuy ji au dialogue daf leen grandir suñu demee poser seen ay ñu xam exactement mais actuellement naka nga leen mën a juger ñoom si ay supputation rek la ñuy dem. suñu mhm. demee lii mooy xew suñu demee la mooy te dara xewagul ce qui veut dire que ñoom bëgguñu dem. dañu am seen comme benn journal bu am ligne éditoriale am lépp loo xamante ne nii méngoowul ak li nga xam ne yaakaar nañ ni moo leen di mën a eggale fu ñu jëm duñ ci ànd mhm. mais naxante amul je pense que nag ay nit bu ñu nekkee ci état dañu war di mën a toog argument moom mooy li nga xamante ni moom moo war a peser mhm. argument yi nag du rek toog si sa biir saal jël sa caméra wax lu la neex déedéet da ngay toog ñu jàkkaarloo nga wax ma wax delloo la mhm. wax loolu nag mooy li président de la république tëral tey képp ku bëgg lu baax ci Sénégal loolu rafetlu nga ko woote bi mu wootee pour le dialogue parce que nag moom président Macky Sall foofu lañ koy xaar. am na loo wax sànq ci politique Sénégal mais dernièrement ce qu'on voit euh, certains euh, souhaiteraient mieux comprendre maanaam euh, ànd tey ëllëg ka andoona yow dem ci keneen ka newoon ci moom ñëw ci yow tey jii on sent que entre vous et le taxawu Sénégal de Khalifa Sall dëgg la bokk leen ne yu bëri mais rapprochement mi ngi am ndax am na yu ngeen gis ne na intérêt Sénégal fa ngeen toog waxtaan ci de lu nekk Ousmane Sonko wax lu nekk tey ils sont ensemble bu kii amee problème que le défendre ko maanaam après kan kan la ñuy gëm en fait qui croire. mais yaa ko wax léegi am na ñi nga xamante ni tey jii seen euh, intérêt personnel bu nekkee enjeu rek jaral na leen même rupture. ak ki ñu doon ak ki ñu doon àndal. Mhm. gis nañ ko ak ñu doon ànd ak Idrissa Seck c' est juste de kii dañu dañ la war a nommer ministre keneen ki laay nommer ministre. nga bàyyi gedd Mimi li mu wax. ñëpp dégg ko ci élection législative yi suñu on était on était on était avec elle c'est vrai que bosam moo gën a jaaxal ñëpp nag <laughs> bosam moo gën a moo gën a yéem àdduna naka la mënee dem ma ak ak ak ak si lu gaaw a gaaw mu jógee fii dem Euh, dem taggi fële. parce que on se rappelle bi Ousmane Sonko di woote dialogue euh, dane mën naa dialogue yow mais am na problème yu war a riggan ci dèjà affaire Adji Sarr ci la bokk. Mhm. loolu la ko waxoon. Euh, tey jii nii ñu condamné ko fële ci Mame bi mu jàpp ne acharnement am na ci. Mhm. donc xamatuñ ko ñuy gëm en mais finalement bu fekkente ni ku wax lu mel noonu la kooku moom da gëm ni kii li muy wax gëmu ko cest dire que doo am une idée boo xamante ni contexte bi moom moo koy. mais c'est ça le mais je pense que nit mën nga ko contre ko wax ni dama contre politique am wax li ngay wax bés ñëw ngeen ànd parce que effectivement circonstances yi laaj na ko non pas pour yow nga jël sa wàll ci ci pouvoir bi wala nga am ay position de pouvoir mais pour l'intérêt du pays nga dem mais nag du toujours noonu lay demee am na ñoo mm-hmm. xam ne seen intérêt personnel mooy tax tey ñu féete fii bu subaa ñu féete fële mais ñi nga xam ne c'est de vrais hommes d'État parce que qui aurait cru que ni bés Moustapha Niasse dina ñëw jàll ci gannaaw Macky Sall mm-hmm. qui aurait que Ousmane Tanor Dieng yàlla na ko yàlla yërëm bés de grands hommes d'état dinañ ñëw jàll si gannaaw Macky Sall mais bi ñu demee ba xam ne intérêt Sénégal loolu la ils l'ont fait sans sourciller te loolu nag jàmm rek la indi ci Sénégal ci fukki at ak benn yu ñu weesu en parlant de jàmm jamono ji kaso yu bëri na ay détenus politiques le président Sall di bañ ñoo xam ne ils ont été arrêtés ci ay wax yu def ay manifestations yu ñu bokk euh, ñenn nañu dañ doon saboté wala ñoo waaj ñoo waaj a yàq wala dafay euh, bi bëri na yaa y aussi à côté des journalistes yoo xam ne actuellement ils sont dans les liens de la détention loolu yëpp aussi dafay xaw a yàq un peu image du Sénégal. foofu laa commencé sànq ma ne la nekk ci veillu élection ak élection bu mënti doon. Mhm. taxul ñu nekk dans une période de non droit ba nit ñi yaakaar nu leen neex ñu def lu leen neex ñu wax effectivement moi je confirme qu'il n'y a pas de détenu politique. au Sénégal Bassirou Diomaye Faye n'est pas détenu politique. non kenn exemple la rek kenn nekk ci détenu politique. bay tax parce que lay tax ñu jàpp ko ci charte parti dañ ko jëlee. ci suñu constitution wala lois et règlements yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy régir le juge amul benn yoon boo xamante nii même bu ñu nee offense au chef de l'État kenn bind ko ci charte APR non loolu ci biir code si si si si si si lois yi ñuy régir si lañ ko def donc détenu politique amul képp koo xam jàpp nañ la dañ naan la loi bi dafa tere lii def nga ko. Mm-hmm. moo tax ñu moo tax moo tax moo tax moo tax ñu jàpp la gënul gënaluñu contexte bi que ñun suñu sañoon sax. loolu du am parce que day xaw a niru loolu te dañuy am argument yu ñu demee ci nit ñi ni leen ñii kat dañuy def ni ku yëngatu rek ñu jàpp la parce que. parce que politique politique mooy féetee benn boor ñooy def lu ñu warul ñoom ñooy ah, def lu ñu warul dans votre camp aussi y a des a tiital mm-hmm. jege na leen ba on le sait. Mm-hmm. nee na manifestation bu amee gars dañuy xool ñan la ñuy jàpp. Mm-hmm. ñan la ñuy yóbbu ak ñan la rey. loolu aussi c'est assez grave Ah. comme propos loolu muy wax moom xaw ma ci dara parce que loolu. mais je veux dire ku wax lu mel noonu xëy hmm. yeewu sa nga naan sa café. lekk sa ceebu jën à midi. tu n'es pas inquiété. Hmm. on se pose des questions. oui mais comme comme ni ma la wax yàlla loolu loolu du président Macky Sall du liggéeyam liggéeyu justice la justice moom mooy moom mooy apprécier. justice bi réforme jaadu na ci wala kontaan nga ci doxal doxalinam. xam nga moom amul dara lu parfait donc lépp lu comme dara lu parfait amul à chaque fois on peut toujours parfaire. Mhm. suñu gisee ni si la majorité des sénégalais gis nañu ni muy doxee suñu doxee nii moom lay gën moi je ne serai je ne serai pas contre. votre mais c'est ah kon jeex na. en fait euh, ma kontaan encore ci invitation bi. Mhm. di ñaan sénégalais yi rek ñëpp ñu delloo si ñu delloo si seen xel. te di bañ rek de manière euh, systématique. Mhm. lu ñëw rek ñu ni état bi gis nga il faut euh, nit ñi bàyyi xel bu état am na ñoo xamante ni ay cocktail molotov la ñuy defar seen kër yi frontière ba jàpp nañ fi ñuy indi ay ngàndaay ils en doutent malheureusement mais il ne faut pas en douter nos forces de défense et de sécurité sont quand euh, assez sérieuses et que dans la réalité amul dara loo xamante ni dañ koy dañ koy créer soo demoon jàkkaarloog ñi ñu jàpp et puis euh, dëgg bi dina génn parce que ah. ils seront jugés mm-hmm. di nga xam ni am na ñoo xamante ni nii tey jii jaral na leen lu nekk li ñu bëgg ñu atteindre ko en utilisant des armes qui sont des armes non conventionnelles je pense que Sénégal li fi yàgg am mooy dialogue dialogue waxtaan toog loolu la président de la république woote suñ si wuy jee mhm. defe naa ni Sénégal jàmm ji mën na fi sax parce que nag lu dul jàmm rek jàmm ko gën te nag bala nga naan naam ne te pour ñu nekk fi faaw jàmm ne fi jërëjëf jërë sant bu baax a baax Mamadou Diagne Sy Mbengue moo nekkoon sunu gan ko remercier ci disponibilité mais ci leeral yi euh, dikk daje suba jàmm incha allah à la même heure beneen invité yaa ngeen jëf merci beaucoup